parce que ni ñu yoree réew dafay feeñ ba ci Assad la preuve incurie wu régime seen yaafuus ak seen i tëlle moo waral lu ay finance ay finaalu coupe boolew ñu leen ci parrain donc lii dama jàpp ne ndam gu rëy la bu parti démocratique sénégalais am Thiès ak ndam bu rëy bi nga xam ne parti réew mi moom la am Thiès la preuve mobilisation bu mag bi am fii amul kenn koo xamante ne nekk na pouvoir réussir na donc dañ si sant yàlla man Thiès sama ñor Thiès laa juddoo fii laa magge fii laa jàngee ba lépp lu ma am Thiès laa ko mos a indi donc su ma demee tey ba si waa zone 3B ñëw seppi ma samay morom ay ministre nekk fi ay directeur général nekk fi ay député nekk fi ay PCA et autres parti au pouvoir opposition bi ñëpp nekk fi ñu tànn ma jiital ma ne ma yow lañ def pare loolu dama si sant yàlla suñu borom parce que lu ñu naan loi loyauté wu démb moo fen tey man Thiès rek ama ñor Thiès laa am te lépp lu ma am fas yéene naa ko indi Thiès bokk ko doomu cees moo waral tey sama teewaay fii tey. waaw waxoon nañ ko démb dañ koy tollantiwaat lii wane nañu pouvoir bi dañu pare pour sàcc élection yi. parce que tey dëkk boo taxaw nit ñaa ngi joy ana lan mooy ndeyu ni di yeewu 5 heures du matin pour dem di inscrire ba 17 heures 18 boo nekkee cinquième position ou dixième position doo inscrire démb seen benn confrère bu nekk TFM wax na ko souligné na ko télévision wareef ñëpp seetaan nañ ko fajar la dem daf pour inscrire wi parce que nee na moom citoyenne sénégalaise la dem na pour inscrire alkaati bi nga xamante ne mooy jël. ay mbiram pour inscrire ko ñàkk na ko teggin wan ko comportement bi nga xamante ne mujj la inscrire ba nekk ne fa ba 17 heures ba noonu la géddee dem ñibbi ñuy laaj ñun ndax ñaari Sénégal dañ fi am ñaari Sénégal mooy Sénégalu Macky Sall ak Sénégal bi nga xamante ne moom la opposition bi jiite. parce que tey même commission yi boo fa demee nee nañu yeneen liste lañ fay teg dañuy jël nit ñi ba midi taxaw ne la machine bi dafa panne loolu c'est pas ñun nous sommes des citoyens sénégalais Sénégal la ñu bokk am nañ fi wal am nañ fi cër comme ñoom pare nañu pour soppi doxalinu carte électeur yi donc war nañ fi teg ay machines yu nga xamante ne baax nañu ñëpp mun nañ see gis bopp lii yëpp pexe rek lañu ñu bëgg lal pour reculer élection yi mais élection yi incha allahu rabbi Macky Sall bis bu ko xamante ne pas yi ko wër nga xam ne prise en charge médicale moo tax ñu ànd ak moom wala ay sinécure et prébande ñoo koy conseillé parce que xam nañ ne amuñu bilan fii ba 2019 lu ñu laal si réew mi bilan wu laa Wade la bu fekkente ne loolu lañ koy conseillé pour mu commencer carte d'identité biométrique ak carte électeur yi bugg a avancer élection yi bis bu ko defee dinañu jar marloo ak moom ñu ngi wax ak président de la république parce que am na ñoo xam ne duñu wax ak ñoom mais président la ñuy interpeller directement son ministre de l'Intérieur. ministre de l'Intérieur wala le directeur de l'autosuffisance et des fichiers parce que nag nit ñi sonn nañu si doxalin bi nga xamante ne moom la ñuy defaree euh, non seulement fichier électoral bi ñu ngi si koy jooy pareeguñu mais ñëpp xam nañ ne tey pour am fi carte d'identité biométrique problème la Sénégal donc nag ñu ngi ñaan di interpeller le président de la bu bëggee dafa bëgg a doxal une élection transparente ñu ngi koy ñaan mu jublu si affaire u carte régler problème commission yi parce que dëkk yëpp am problème fii wane na ko tey si Thiès. Massali benn question. finalu ndaw ñi yow lañ ko parrainé mag ñi Pape Diop muy réew mi PDS ñu bokk final nekk fii ci hippodrome Diaw mu kodd euh, ça donne des idées. waaw mais bi leer na lii wane na ne pouvoir bi tekkiw ñu dara démb ak tey à Thiès opposition lañ nekk stade bi gis nga nu mu feesee te mobilisation qualité moo fi nekk ay ndaw ay ndaw yu gëm seen bopp ay ndaw yu taxaw. pour xeex li nga xamante ne moo fi nekk parce que man je vois très mal tey man dama jàpp ne Thiès si Sénégal la bokk mais dañu dem tey ba bëgg a dindi Thiès si Sénégal la preuve problème insécurité bi ñëpp gis nañ ko Thiès barki démb une femme enceinte a été enlevée ñëpp gis nañ ko amul benn jéego boo xam ne def nañ ko pour saafara loolu donc parti au pouvoir na am ak problème Idrissa Seck mais nag au delà de Idrissa Seck nous sommes des citoyens Sénégal lañ bokk am nañ fi wàll war nañu mun a jàppale ndaw ñi war nañu mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoo fi nekk parce que lii ñaaw na tey parti au pouvoir lu toll ne nawetaan di affaire ndaw te ñëpp xam nañ ne électorat wu jeunes yi soixante dix pour cent la fii au amul leen loo xamante ne def nañ ko pour jàppale ndaw ñi ñëpp gis nañ ko donc jot na tey pouvoir bu gestu Thiès taxaw Thiès régler problème yi nga xamante ne moom la doomu Thiès di jànkonteel waaw problème Barthélémy Dias man du sori lu tax man ne du sori man du ma fëkk jëf duma ma suul jëf parce que quand j'ai été arrêté d'une manière notoire et caractéristique ñëpp joowli ko papam Jean-Paul Dias ñëpp xam nañ ne mouvance présidentielle la bokk moo taxaw def conférence de presse ne Mouhamed Massaly li nga xamante ne nguuru Macky Sall moom la ko teg dañ koo tooñ nañ ko génne kaso mu dem ñibbi këram jëf jooju baam defal ma muy Jean Paul ma toog rëbës chambre 35 seetaan ko moo tax wax dëgg yàlla aw ma lenn loo xamante ne lu naka dinaa ko yëkkati tey di ko teg si kaw Barthélémy Diaz parce que gor su ne gor la baam moo ma lebaloon loolu moom laa koy fayee